sàkk ci kilifa yëpp ak ñi nekk ci jàkk ji ñu gën a jege si ci sàppe kanam yi ndax mbokk mi ñu doon taaxeerlu ngir mu agsi fi la julee ajjuma dañoo gisante wutoon ak moom waaw dañoo waroon sëlmal ci julli gi rek daal tàmbali waxtaan wi muy docteur Serigne Salihou Salam di kenn ci doomi yoon wi jàngee ci yoon wi mi ngi jàngee njaareem ci sëriñ Mouhamadou Dem muy ñu bari xam ci atub sëriñ Touba ci jàngale jànge itam ci sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nekkoon bindikat ci yoon wi gëstukat ko jege woon sëriñ bi jóge fa nag dem Maroc am fa ay lijaasa yu kawe liggéey fa itam ab dellu si waat ci réew mi itam liggéey fi ci lépp lu jëm ci xam-xam liggéey ci administration bi ba ay liggéeyam jeex mu bokk ci borom xam-xam yi yoonu murit ak di gëstu ci yoonu Serigne Touba di kenn ci ñi nga xam ne itam itam siqa ci xam-xamam ak ci ay gëstoom ak expérience am ba nga xam ne tey jii Serigne Saliou salaam ci biir yoonu murit mbooleem borom xam-xam yi ak gëstukat yi nangul nañ ko ci ay jéegoom muy participer ci jataay yi gën a mag ci yoonu murid di organiser loolu moo tax waa xuratul ayni di njabootu sëriñ Souhaïbou Mbacké te barab bi di bërëbub xam-xam ñu fi amal ay waxtaan yoo xam ne day am ci diiru koor di fi amal li ñuy wax jaamiatu màggal ñu di ko amal ci bu waxtu màggalu Tuuba tàmbalee ci fanam yi ñu ci waxtaanee lislaam di ci def fi waxtaane xam di fi waxtaanee njàngaleem sëriñ bi moom mii dafa bokk ci borom xam-xam yi nga xam ne waxtu barab bi amee yitte ci luy leeral njàngaleem sëriñ bi xel day dem ci moom comme ni muy demee ci yeneen mbokk yoo xam ne ay nattangoom lañ ci xam-xam ak ci yoon wi ak di gëstu ci lépp luy jëmi kanam njàngaleem sëriñ bi loolu moo tax ñu amal mbégte beneen yoon ci koorug ren gi di koorug 2017 fii ci tuubaa ci kër sëriñ Souhaïbou euh, tey ji tolloog yaakaar naa ñaar fukki fan ak juróom-ñett su ma joomul di bisub àjjuma ñu nekk fii ci masjidu Serigne Souhaïbou Mbacké fas yéene fee dalal Serigne Saliou Salam ci turu daairatu Xuratul Ayn ngir bëgg ñu mu waxtaanal ñu ci tomb bu yitteel muy asayx wa tasawuf sëriñ bi ak taxawaayam ci tasawuf te fii ñu toll ci réew mi eh, nit ñi nga xam ne ay nit tasawuf lañ war nañoo gën déggaat bu baax gën a gëstuwaat tasawuf googu ñu nekk gën cee xam itam fa ci seeni kilifa féete ndax am mbir la mu mat a xam waaye tam lim làmb ci ay jikko ak ni mu mën a defaree société ak itam xam nañ ne tasawuf itam léegi dafa bari ay noon bari ay boromi xam-xam yu gemb te am ay argument yu ñuy indaale ngir mboolem luñ yaxaloon ci tasawuf ñu jaar ci seeni jëmtukaay ak seenu xereñ parce que ne màbblu ca bari bari kon nag loolu ñi féeteeg tasawuf war nañoo xam liñ bokk lu mu doon war nañoo argumenté seen mbir ñoom seen bopp ba am ay dellukaay ak ay sukkandikukaay yoo xam ne dañ mën a jàmmaaroog bépp noonu bu wuuteeg ñoom am njàngale rawatina taxawaayu Serigne Touba ci lislaam ak yeesal gim dugalaat ci biir njàngaleem lislaam ak fi mu fekkoon tasawuf ak fi mu ko andiwaat ak lim ci yare ak yi mu ci def yooyu war nañoo xam la cay ay cosaan xam ci yañ ca war a téye xam ci li yiñ ci war a mën a argumenté waaye xam ci itam la koy dëgëral xam ci la cay ay sukkandikukaay loola nag insha allahu taala sëriñ Saliou Salaam du gan ci yoon wi ci waxtaane yoon wi nañ ko bokk déglu déglu buñ ko dégloo ba noppi fu duggee ci taxawaayu sëriñ bi ak tasawuf rek bu boobaa insha allahu taala dana mën a nekk njariñ dana mën a nekk ab làmp bu leer ci ñi nga xam ne daañu gëstu mbirum sëriñ bi te bëgg waxtu wu nekk ñuy am ay delluwaay yu wér-wér kon sëriñ Saliou dañuy tënk rek di la wax euh, ñu ngi lay ndokkeel ci jataay bi di ñaan si borom bàyyi la fi yokk say gëstu yokk sa tawfiq ba liggéey bi ngay liggéeyal xam-xam di ko liggéeyal islaam di ko liggéeyal yoon wi waxtu wu nekk da ci gën a am ay jëm kanam di ci gën a am ndam di ci gën a am tawfiq te mu gën a doon njëriñ ci jullit ñëpp rawatina eh, taalibe sëriñ bi kon ñu ngi lay ndokkee di la wax falta tafaddal mashkura bi kon noo ngi lay delloo nuyu ak ziar ak sant di nuyu waa kër gi taan wi ni ko sëriñ bi waxee noonu la maanaam ñu ngi ko war tëral ci tomb boo xam ne nu ko tudde cheikhul xadim cheikhul xadim ak cheikhul xadim ah, wa dawruhu fi atasawuful islaami wa tatawuruhu maanaam ah, sëriñ Tuubaa taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko wala boog rôle bi nga xam ne joué na ko ci histoire tasawuf al islaami ak tatawuram maanaam ak yokkuteem ak màggam ci sow jant ñu bëgg nag leeral euh, foofu ñaari mbir rek ay yoo xam ne dañ ko bëgg leeral ubbee waxtaan wi moo di ne xam ngeen ne waxtaanu tasawuf moom mooy waxtaan woo xam ne eh, mbiri xaqiqa ci lay aju mbiri xaqiqa lay aju mbiri xaqiqa nag maanaam mbiri tasawuf ci boppam ak xadaaya maanaam ak yi nga mbir yi nga xam ne moom la tasawuf di lijjanti day mbir yoo xam ne am xelum xelum doomu aadama mënu ko caa jariñ dara maanaam mënuñu ko dégg akum xel euh, mënuñu ko itam déggee ci yoon yi nga xam ne moom la yenn tubaab yi di déggee muy expérience wala lu ñu mën a laal wala lu ñu mën a dégg wala lu ñu mën a fos euh, gis ak bët wala lu ñu mën a fóon wala lu ñu mën a mus yooyu njumtuwaay mën na laay yóbbu ba nga xam dara ci xadaayal xaq naka noonu xel itam ndax xel dafa am fu mu yem yàlla da ko rëddal frontière tubaab yi gëm nañ ne loolu ñoom itam gëm nañ ne xel am na frontière foo xam ne su ko jéggee dootu nekkum xel moo tax te loolu am na foo xam ne sëriñ bi junjeen na ko fa ci njaareem ci téere boo xam ne sëriñ Muhammadu Dem moo ko bind tudde ko sëriñ Tuubaa amul moroom mu di wolofal foofa am na jataay boo xam ne sëñ mu dem ci boppam fekk na jataay ba ñoom ñiy boroomi xam-xam yu wëran sëriñ bi ñu toog sëriñ bi di waxtaan ak ñoom sëriñ mu dem wax na ci téere ba nee na am na koo xam ne ci ñoom day laaj ni sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu te nee na mi ngi toog di ko laaj ne ko sëriñ bi lan moo dig taalibe mu laaj ko ko ñetti ñaari yoon sëñ bi tax tànkam la ko ba ca ñetteel ba sëriñ Tuubaa door a wëlbatiku ne ko diw mu ne ko mbàkk mu ne ko xanaa xam mu ne taalibe kenn mënu koo wax waaye dañ koy def ci nit rek mu nekk ko li war a loolu moo nekk mbirum taalibe mbirum xàqiqa la lu ñu mën a jëm cim xel du mënee su koo natt cim xel loolu sëriñ bi leeralaat na ko ci ndax xaqiqa ak wala mbiri xaqiqa yépp ñi koy liggéey liggéeyanti moo di ne ahlul xaqiqa te mooy awliyaaw yi loolu moo tax sëriñ bi wax ne mbir moomu mu ne aw làmmiñ mënu koo wax boo demee ci beneen borom xam-xam boo xam ne bu mag la bu bokk ci ngirum El Hadji Malick te mu rawoon ci jamonoom ci douzième siècle ku ñuy wax Abul Walid Ibn Rushd euh, nekkan qaadil qudaat maanaam le juge des juges nekkan encore xalaatkat ci philosophie bi gën a mag ci jamono ci réewi tubaab bi ak ci réew ak ci réew jullit yi moo ci rawoon moom nee mbiri xàq day képp koo xam ne yaa ngi koy jël di ko natt nattukaayu xel wala yaa ngi jël sam xel lu mu rëy rëy nga di ko natt mbirim xàqiqa wuute woo ak ki nga xam ne dafa jël balance tuuti yi yi ñuy natte or nga jël ay montagne di ko ca peese mu waxaat ne itam mbirum mbiri xàqa ko waxtaanu xàqiqa day ku ko bëgg a dégg soo taxawee ci cadre sariya ji ko déglu mbaa nga bëgg koo xam doo ko dégg mbiri sariya itam soo xamee ne dañ koy waxtaane dangay ngay sempeku ci cadre xaqiqa ñëw ci cadre sariya bi nga déglu mu waxaat ni képp koo xam ne yaa ngi taxaw ci cadre sariya di dii nga xaq mbirum xaqiqa wala nga nekk ci biir xaqiqa di nga mbirum sariya ne ne soo wattuwul di nga màbb sariya wala nga màbb xaqiqa wala nga la nga màbb leen ñoom ñaar ñëpp mu ne kon nag kuy bëgg a déglu mbirum xaqiqa maanaam mbirum tasawuf da ngay génn fa nga ne génn kaadaru xel génn kaadaru laal yëg yëg-yëg maanaam euh, expérience génn kaadaru sariya ñëw ci kaaduru xaqiqa nga dugg fa toog door ci ngay mën a dégg mbirum xaqiqa kon loolu kon lu jara leeral la ndax ñu bari dañuy dañuy dañuy nekk ci biir xaq sariya bëgg laa dégg te su boobaa du sot maanaam mi ngi mel ni rek nga nekk ci biir sariya bëgg att mbirum sa Ibra Faal loola njuumte yu rëy ngay def ci wàllu xam-xam ndax dangaa jaxase kaani ak soow dañ moo tax ñu ne ku bañ a juum ci xam-xam sooy àtte mbirum Ibra Faal da ngay génn kaadar ba nga ne muy sariya wala xel nga ñëw ci biir kaadaru xàqiqati déglu ko su mu ne soo ko dégloo di ko dégg loolu kon ci leeral la bu ma bëgg a def ci njaal bi euh, beneen leeral bu ma bëgg a defaat mooy waxtaan wi taxawaayu Sëriñ Tuubaa ci tasawuf nun ñëpp xam na ne mënee ko waxtaanee ci waxuma benn jataay waaye ci benn bés bésu lëmm xaju fa euh, ndax yaatu na yaatu goo xam ne mënee su ko xóot na xóot na goo xam ne lu ñu war a teelu la te bari na sew-sew yu ne ci biir moo tax ba nun li ñuy def rek moo di ne dañuy joxe li ñuy wax alxututul raïs maanaam dañuy fexe ba joxe ci ay tomb tomb yooyu dinañu mën a may ñu mën a peeg li nga xam ne mooy gis-gisu sëriñ bi wala bokk taxawaayam ci tasawuf ak li ko wuuteleeg ñi ko jiitu woon ak ñu fi fekkan ba nu mën a ràññee daal taxawaayu sëriñ bi ak gis gisan ak taxawaayu kudut moom ak gis-gisam su ko defee loola dina nu mën a ubbil bunt nu mën a topp bunt yi benn par benn nag kenn ku nekk mën ko topp sa bopp di ci gëstu di ko seet kon loolu rek ay tomb la ñuy joxe te it conférence it noonu la war a demee ndax conférence du nekkul ñëw di xelli xam-xam waaye da nga joxe ay ay tomb ubbi ko bàyyi nit ñi laaj nga tomb loolu mooy loolu mooy conférence nun na conférence bu ñu ko jàppee waxtaan ak waraate waaye bokkul euh, yaakaar naa ne nag man ci sama yaakaari bopp ak li ma gëm te bare naa ci moroom moo di ne eh, gëstu taxawaayu sëriñ ci tasawuf ak génne wala wone taxawaayam ak xalaatam ak gisam ak liggéeyam ci tasawuf ñaari mbir moo ci am benn ñu di ko jàngat di ko gëstu ci li tubaab yu tuddi dans le cadre local maanaam ñu di ko gëstu rek yemale ko ci suñu biir nu nduur wala ci biir réew mi loola su boobaa mën nañ fa yàgg lool te su boobaa xalaatam foofu rekk lay yem di fa wër di génn ñi nekk ci université yi dañ ko mën a xam gëstukat yi dañ ko mën a xam ñii dul ay jullit sax duñ ko mën a xam su boobaa te xalaat dafay toll foo xam ne kenn dootu ko moom te xalaatu sëriñ bi kenn moomatu ko fi mu nekk nii maanaam humanité moo ko moom ñépp ci bokk na ba ci yéefar yi ak catholique yi ñépp kuy doomu aadama te tey gëstu te amum xel bokk nga ci yow nag yaa xam nag lañ ci jublu waaye xalaat day toll foo xam ne day nekk milki yelil insaani te moom foofu sëriñ bi li mu liggéey foofu la toll ba tax na kon am na beneen xeetu njàngat njàngat boobu mooy njàngat moo xam ne mooy mën a internationaliser xalaatu sëriñ moo koy mën a yóbbu ci marché xam-xam ba ñépp gisandoo ko njàngat boobu nag man mooy bi ma gëm man ndax beneen njàngat bi sunu bàyyi ak sunu maam yi fi nekkan te te man noo jàngal lañ ca def ñun mënu def sax genn wàll lépp lañ ca war a wane wane nañ ko lépp lañ ca war a def def nañ ko ba fii mu nekk ni amul ci nun kenn koo xam ne mu yegg nga ci ñoom wax yoon woowu nag xam-xam bu bees bi moo ko laaj maanaam li ñu wax ak dirasat al manhajiya aw dirasat al ilmiya moo laaj loolu moo tax ñu gis ne euh, wax mu sax day jaadu waaye day nekk lu war ñuy jàngat sëriñ bi ci àla daw i maanaam ñu ñu lëkkale ko ak li ñu tuddee iskaaliyatu ak tasawuful islaam yi maanaam ba jàngat sëriñ bi na nga du na ko jël moom ak xalaatam dugg ci cadre biir iskaaliye boobu nga jàngat ko li tax ma wax loolu mooy lan lañ jublu ci iskaaliyatu tasawuful islaam yi ak ak li tax ñu war a lëkkale sunu njàngat ak loolu moo di ne iskaaliyatu tasawuful islaam yi ni ma leen ko mën a waxe ci wolof yoo xam ne daan ko mën a dégg mooy marché la marché boo xam ne àddina bépp fa la ñuy daje ab marché marché xam-xam marché tasawuf la àddina bépp fa la ñuy daje marché boobu nag mboolem jafe-jafe ak masala yoo xam ne am na ci tasawuf mu la ko commencé ci benn ba fukk masala yooyu yépp borom mbooleen ku mas a nekk suufu yànke liggéey nga ci mbooleen ku mas nekk nekk sufiyanke ci histoire tontu nga ci joxe ca sa xalaat andi ci ay solution ñépp nag laa wax solution yooyee yépp nag dañ ko jël di ko yóbbu ca marché ba di ko fa wane marché àddina ba di ko fa wane ne diw sàngam day moom lii mooy tontoon ci liñ doon laaj diw sàngam day lii mooy gis-gisam ci mbir mi kii mu gën a rafet rafetle kii mu gën a rafetle man de bee moom a gën a foofu la ñuy la ñuy exposé mboolem xalaatu sufiyaan mooy marché boobee kon bu nu bëggee sëriñ bi ñu fekk ko ca marché boobee dañ koy jàngat ngir ci biir ci marché boobu ngir ñu jël xalaatam ak gis-gisam ak tontam nun tam yóbbu ko ndax marché la boo xam ne ku nekk da nga fay andi sa marchandise naar yi dañuy andi waa Pakistan indi waa Inde andi ah waa Afrique andi nun sëñ Tuubaa loonu am kon nag bu ñëpp yóbboo ca marché ba teg ne nun sunu waay lii la def nun tam danoo war a yóbbu foofu waaye waruñu ko yemal ci marché Sénégal wala marché Touba wala marché Ocass déedéet dafa am marché bu ñëpp bokk ci àddina bi marché boobee nag foofoo la ñu war a yóbbu léegi mbirum sëriñ fa ñëpp di yóbbu nu yóbbu fa nun tam te yaakaar ne buñ fa yóbboo duñ waaw loolu loolu kon moo waral kon ñu waral a lëkkale jàngat sëriñ bi ci biir cadre iskaaliyatu atasawuful islaami ndax iskaaliya boobu mënumaa wax histoire benn sufiyanke boo xam ne yëngatuwut ci biir cadre iskaaliya boobu amul te xalaat bu mu am ba xëy dem xalaat boobee mooy gis gisan ci iskaaliya bi asile yi iskaaliya yi posé moom la tontu ba xëy dem tontom moo fi nekk ñu di ko jàng naan xalaatu bi xalaatu bi imaamul Xasaali ton xalaatam mooy tontoom escalier bi la lijjanti lan nan ko gisee moom la moom la fi ba ci téere yi ci yaa ulum murid ak feneen ak feneen Sahrawardi gis-gisam moom la fi ba naan mooy xalaatam eh, Bustaami ci ci biir escalier bi la liggéey ba xëy faatu radiyallahu taala anhum jamian fi ba ñu naan mooy xalaatam te Sëriñ Tuubaa joxoñ na ko ci allahuma xam si tu rijaali moom moom am moom te lañ fi ba mooy mooy gis-gisam ci escalier bi Sëriñ Tuubaa nekk ci biir escalier bi lijjante fi lim fi lijjante dem ñu téye fii marchandise ci biir Tuubaa loolaa ne du jaaduwul dañ ko war a génne yóbbu ko fa nu yóbbu marchandise yi wane ko kon loolu mooy solos lëkkale sëriñ bi buñ koy jàngat njàngat mi koy jàngat ñu lëkkale ko ak escalier boobu. ci la ko ñëwee jàmbur yi mën a xam ci la ko arab yi mën a xam ndax marché ba ñëppay xëy di fa def waaw kooku man loolu laa gëm ci laay liggéey itam euh, bi nag mooy la nga xam ne nga xam ne suufiyanke yi yëpp ci lañ nekk boo ko yëgee ak boo ko yëgul boo ko xamee boo ko xamul waaye mënoo koo génn mi ngi mel ne nga nekk ci biir àddina bi nii tey dane doo noyyi oxygène def ndax ñëppay nooy te loo noyyi oxygène man nga ko bañ a xam na gone gi fi nekk mu ngi noyyi waaye xamul ne xamul li nga noyyi lan la kon am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci tasaw te xamuñu ne ñu ngi ci biir escalier bi am na nag ñi ko xam muy kàngam yo escalier bi liñ koy mën a tënke pour nu xam ko mooy ñoom ndax dafa gudd te détails yi bari na waaye dañoo déparé sufiyank yépp ñu ngi lay taaye seen mbir ci ñaari aay huwal awalu wal aaxiru wal zaahiru wal batin foofu foofu lañu lay taay seen mbir yépp moo leen may carte blanche ak fi yàlla waxe naan huwa aalamul xaybi wa shahaada ñett yooyu moo leen may kart blanche ñu xaaj àddina bi ñaar baatin ak saay foofu lañ ko wéer yi muy laytaay bañ koo xaree ñaar la àddina bi ñu nekk muy saahir di mu nekk àddina monde limité boo xam ne maxduut dañ koo ndar képp ci frontière mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem ci place ak ci temps ndax yàlla da ko bind ci ba mu ko neexee mu dalee foofa te waxtu woowu te waxtu nga ñëw mu jeex tàkk kon limité na ko ci temps waaye it am na fu mu tàmbalee ci espace ci place ak fu mu yëg kon moom àddina bu su lu tuuti la kon ndax lépp lu ñu taxdir rek lu ñu limité rek tuuti la ak àddina bala yàlla nekk ak malaayka yeeg yomal xiyaama ak boobee ñoom Sëriñ Tuubaa tukki ak wàll yi fi nekk na yonent yi foofee mooy alaalamul baatini bi moom amul fenn fu mu yem amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te itam maanaam àddina la boo xam ne mënee su koo gis mu nekk moom invisible illimité alalamu la nihai wal aba tey du jeex abadii la bii nag day jeex faani la loolu iskaale yi ñoom bi ñu ko leen noonu ñu am problème ñoom bi loolu nag dama ne boo ki njëkk bind ci tasawuf ba ci ki ci mujj bind téere yëpp ba ko jóoran fii tey nga jàngat ko yëpp nga analise ko lii rek la lay jox comme résultat ñoom ñëpp maanaam boo jëleen tey jii lu mel ni déclaration de Mbàkke Kajoor bi Sëriñ Tuba waxee ne allahumma eh, shafaani rasulullah doo xootu jumaa ba ba ca ba ca fin ba ba na mu jeex nga analise ko da ngay gis ne na escalier bi foofu te daan ci ñëw su ko waxtu yu mayee donc bi loolu biñ ko séddalee ñaar pour suufiyanke yi ne ah waaw léegi nag kon nun ñi di nit yor yorew yaram yàpp ak yax di madd matière ñu nekk ci àddina bii yàlla nekk fële wala boog nun ñu ci saayir yàlla nekk ci baatin ah kon nun naka la ñuy mën a def ba tox ba tukkee ci saayir egg ci baatin maanaam naka la ñu mën a xamee kon baatu naka la mën a yegg ci yàlla naka la mën a xamee yàlla mi nekk ci biir baatu kooku day laaj ngi génn ci saa yëpp dem ci baatu day laaj nga tukki tukki almusaafiru muy kiy tukki tukkikat boobu moom la ñu tuddee assaaliku awil murid ki soobu yoonu yàlla ñu ne ko foo jëm mu ne damay gàddaay damay tukki foo jëm naa nga jëm ca yàlla loo fay wuti mu ne bëgg koo xam noonu dañuy wax naan diw yegg na yegg na ci yàlla ku yegg rek da jóg da ngay jox dox yi dem Sëriñ Tuubaa bokk naag suufi yànk yi ko tuddee tariiqu sayir yoon wi nit sarik bi di jaar di tukki di dem kon ñoom rëdd nañ ni bi ñu séddale ñaari àddina yooyu rek la ñu rëdd daal di rëdd yoon nekkoon kon faaw nu jaar fii kon bu mu bëggee dem yoon woowee wutal nañu koy maandarga yu baree bare wutal ko ay règle ragal yooyu yëpp boo ko boolee mooy li ñu tuddee ay maqaamaat xam ne danga nga yëg degré par degré loola it bëgg ma caa dugg ndax ndax beneen kii la waaye daal yoon wi dañ ko wutal ay degré maqaama maqaama maqaama ba kere nga yegg ba ci maqaama nihaaya ba muy ay nihaayaat foofee nag diggante boobu nag euh, foofu toll rek am nga maqaama moo am waaye nag na nga yéegi ak coono ba ak këla yóbbu yooyu yëpp ay mbir tasawuf la léegi foofu ñoom gis na ne kon kon yoon am na mu tudde ko tariqa baatu tariqa foofu la juddoo gis nañ ne kon am na koo xam ne bu bëggee xam yàlla faaw mu tukki Sëriñ Tuubaa wax na ko def ne wa bi lan mooy wa baax bi mooy boo jàngee li la yàlla sant ci sa diine sa sariya ni ngay julee ni ngay wooree ni ngay jàppe ba xam sa diine mën a xam farata yeeg sunna yi wàccoo nga ak sa diine sëriñ bi ne su boobaa mën ngaa dem nag jàngi métier baa nga defe leneen wa baadu gannaaw loolu itam soo bëggee nag xam yàlla nag su soo bëggee xam yàlla nag yegg ci yàlla nag ah doo yem foofu da ngay suub wa baadu in raamal wusuul ah yesluku ala yadday mukammilan yaqfu rasul loolu sëriñ bi wax kon eh, njàng mi moom farata la ba xam sa diine waaye nag boo bëggee xam yàlla moom ah faaw nga sóobu faaw nga tukki yasluku day sóobu fan lay sóobu tariqul xàqta yoon tasawuf lay sóobu fu mu jëm ca yàlla nu muy demee muskila la escalier bi nee na muskila la ku koy yóbbu muskila suufiya la qadiya la masala la ah, lu koy lan lay jànkooteel ci yoon yi masala la yooyu lañ tudde alxaqabaat yi wal hujab hujja bi yi lay yiir ci yoon ki lay yóbbu muy almurabbi sëriñ bi yow miy tukki mooy yow saali bi garaat yi ngay am ci yoon yi maanaam kilomètres yi ngay yi ngay jéggi di dem ak aqabaat yi muy maqamaat yooyu yëpp ay mus masaaki maarifiya suufiya yoo xam ne mutasawif mutasawif yëpp dañ caa am xalaat lijjanti ko loolu iskaal yi moo posé problème yooyu ci mboole mu musubiyaat yi su fekkee ne am ngeen benn mutasawif xam ngeen ko boo xam ne ñëw na dund na fi ba dem te lijjanti mbirum maqaamaati xaal ak mbirum wusuul ak mushahada ak kësfak ilham ngeen wax ma ko te yooyu yëpp iskaal bi moo ko posé iskaal yi loolu boobu yëpp boo ko boolee moom lañ tuddi iskaal yi tasawuf ñi koy mu alaja nag la ñuy mu alaja mooy seen philosophie ci tasawuf mooy seen xalaat ñëpp rek yóbbu nañ seen xalaat ñoom te marché ba nun ñoo def yóbbooguñu waaw benn moo di ne itam bokk na ci problème yi nga xam ne iskaliye bi da koy posé société yi duñ ma ko posé man ñi soobu yoon tasaw di borom xam-xam ba yegg ci yàlla dem ba ñëw ñooñu da koy posé ñooñu ñooy lijjanti lool waaw maanaam ñu mel ni Sëriñ Tuubaa ak ad-Qaadiriya ñeen ñoo ñuy lijjanti yooyu waaye du nun ñii du itam fuqaha yu jiite imam Malik du lijjanti loolu de Saafi yi du ko lijjanti itam déedéet déedéet Saafi yi ak imam Malik ay ahkaam la ñuy lijjanti xalaal ak xaraam ak mu baax ak mandoom la ñuy lijjanti ak seeni sew-sew bokkuñu mawdoo loolu mu am yeneen moo di ne waaw ñoom euh, euh, sofiyanke yooyu euh, afan escalier boobu bu ñuy dem bu maanaam murit bi walla saalik bi wala musaafir bi bu sooba yoon yàlla buy dem nu muy demee benn ñaareel moo de ban njumtuwaay ban njumtuwaay maanaam ak ban manhaj wasiila lay dem lay sukkandikoo ba yegg ñaar ñetteel ba moo de waaw bu nit kooku di wuti ci yàlla alaaqatu nit murit bi as-suufi mutasawwi digganteem ak yàlla wala nit doomu aadama sax la ñuy wax alaaqaam ak yàlla digganteem ak yàlla buum ngi dox digganteem ak yàlla ndax buum la goo xam ne ñoom ñaar mën nañoo jokkoo directement te du am wasila du am waasita wala diggante la boo xam ne mun fase la faaw nit ki am wasila loolu iskal yi bi ko posé muy problème bu mag a mag a mag suuf yaa ngi koy wute ñi ko ñenn ñoo koy lijjanti suufiyanke yi ñoo koy lijjanti ku nekk da nga cay tontu wax ca sa xalaat la nga tontu ak li nga ca wax lépp muy sa xalaat nag sa waa kër sa njaboot dañ ko jël yóbbu ko ca marché ba àddina lépp xëy xam ne di wax na nanga ñu xamu na ko ne i ponkol am na nekk te ca dëkk sàngam kon kon sëñ bi dañ ko war a yóbbu foofa te pour njàng yóbbu ko foofa dañ ko war a jàngat teg ko ci yoon yi nga xam ne moo ko yóbbu foofa pas moom nun ñoo war a tegu ci yoonu njàngat xam-xam boo xam ne mooy yóbbu sëñ bi foofu d'accord ñun ñëpp xam nañ ne baatinam ak fi mu fi mu egg ci suñu boroom euh, euh, mbiram faaw mu rek àddina waaye nag duñu toog duñu doy loolu rek toog rek seetaan na ko xool bu doon loolu kon moom li mu daj du ko daj ah, ah kon nun tam nag def su fee doon afam lu nu bàyyil muy nonoo dana loolu noonu wër ñoo yaacaaral wër ñoo taayeel te ñëpp te nag dañu toll ci jamono joo xam ne fii mu nekk nii muy awlama mondialisation képp koo xam ne sàggan na nga sa ndono mbaa jaaroo yoon woo ko mën a déggee déggin wu jub xamal ne amatoo waaw foofu la jamono ji toll fi mu nekk nii geerum ndono moo xew ci àddina waaw ñooñu yooyu problème yépp di jafe-jafe moom la escalier bi posé posé sofiyanke yi mu des nag waaw ñoom ñiy dem di tukki saalikuun yi almuriduun ñi sóobu yoonu yàlla waaw ñoom fu ñu jëpp ah ñu ne ca yàlla ñu ne waaw ñoom lan mooy seen yitte maanaam hadaf ba maanaam objectif ba leen tax a jóg lan la loola mooy loolu ab question la yii ma wax yëpp ay question la léegi nekk Sufyaan bu rek da tontu kenn ku nekk Xasaali tontu na Sahrawardi tontu na Bustaami tontu na Ibnu Arabi tontu na Xalaaj tontu na Sëñ Tuubaa tontu na waaw léegi ñoom ñëpp tontu ñee ñoom defar seeni tontu gars yi ba mu jekk ñu yóbbu ko ci marché ba ñun ñu téye suñu tontu fii ah xaw ma ndax. li may wax xaw ma leer na am waaw waaw waaw loolu foofu yaakaar naa ne foofu la combat bi nekkee foofu la débat bi nekk tontu lañ léegi alaaqa bi ñi nga xam ne suuf yanke yi nga xam ne dañ ne alaaqatu nit ak yàlla alaaqa la direct ñooña dañoo ñooña ña ko wax ñépp dañoo dàq mbirum wasiila amul nanguwuñu waasita nit nekk diggante nit diggante sama diggante yàlla nit dox fa ñooña dañoo juum te njuum tega teyuñu ko mustahidun lañu maanaam am nañu bu bu ñu war na am ñaari tuyaaba benn tuyaaba la am waaye yàlla du leen bindal bàkkaar waxuma samay wax wax boroom xam-xam bi lay wax li tax ñu juum moo di ñoom ak ñoom njuumte lañ ko tuddee ci wolof waaye xir la ak xëy na yaakaar ne bii moon na gën a gaaw nga jaar ko fekk ndekete mu gën a gudd loolu rek la ñoom dañu gisee ne diggante nit ak yàlla alaaka bi relation bi am seen diggante dañu xool suñu boroom pour niñ ko màggale moom niñ ko rëyale ñu gis ni sifaatu uluhiya maanaam sifaatu caractéristique yi nga xam ne mu aju ci jëmmi suñu boroom moom ci boppam ak màggam ak rëyaayam te kenn du ko ca fekk ñooy gis ne loola fam suñu borom foofu la gën a mate ñu jaar ko ci sifaat yooyu ñu jaamoo ñu jaamoo ko foofu ndekete te su xamuñu ne suñu borom ba ñu demee ba yegg ba egg ci suñu borom ba ba maanaam ba egg ci li ñuy wax mushahada maanaam jàkkaarloo ak wax xaqiqatu wahdaniyati sifaatillahi taala ñu xam ko dëggantaan tawxiid ni mu nekk dëggantaan nga xam ne ñoom dootuñu gis seen bopp ñu xamee kaw ak suuf dootuñu xam bëccëg guddi gi ñu gisati lenn lenn rek lañuy gis mooy yàlla yàlla yàlla bu ñu gis leneen ndax tant nga gis ñaar kon seen tawxiid matul waaye bu ñu gestoo xool ci kaw suuf xool seen bopp du ñu gis lu yàlla muy ahadun ahad foofa nag moo tax ba ñu fa tolloo dangay gis ku fëgg dana ne man maa yàlla waaw xalaat def na ko ne man maa ana allah man yàlla ndax yoon moomu jaar la ñoom ñoom moo tax ñoom daan ñu dàq ñu dàq wasiila te dàq gi ñu dàq wasiila taxul wasiila dàqu yoon yi ñu jaar moo leen yóbbee loolu léegi kooku ñoom noonu lañu ñu gisee alaaka bi ñeneen ñi nag Sëriñ Tuubaa ci ñooñu la bokk radiyallaahu taala anhu moom naa naag ñoom ñi mu bokkal gis-gis waaye juboo naa ak ñoom ci lenn juboo naa ak ñoom ci ne alaaqa bi du alaaqa mubaashira diggante nit ak yàlla du du mubaashir premièrement yonent bi mooy waa sariya alquran sariya al islami ali mooy alquran mooy waasata bi jëkk suñu diggante yàlla ndax yàlla wàccu wax ak directement dafa yónni ci ñun ndaw ndaw li bàyyi fi téere muy waasata ñu di ci sukkandiku di xam yàlla di ci sukkandiku di xam ne yàlla wax di ko def kon mooy sunu waasita foofu lañ ko wéer ñoom itam alors Serigne Touba nag dafa bokk ñi nga xam ne dañuy gëm ne alaaka bi du xëyri mu baasira la euh, indirect la ba taali nit ki dafa war a am waasita wasila loolu suuf yaa ngi koy ñi bokk ci madrasa suluke yépp a ko gëm waaye nag fi mu wuteeg ñoom nag daañ ci yow moo di ne wasila woowu ñi ñi gëm ñi wax loolu lépp ñoom ni ñuy ni ñuy jëfee ni ñuy appliqué wasila bokkul ni ko Sëriñ Tuba appliqué te loolu daan ci ñëw ci bu ñu leen wanee ñoom nañuy deme ak ni Sëriñ Tuba di ñoom nañu tukkee ak ni Sëriñ Tuba di tukkee du nekk benn foofu kon ma bëgg wax ne yii ma leen wax limal yëpp ci ay ay ay ay ay ak i ak i tomb loolu lépp boo ko boolee mooy iskaaliyatu tasawuf maanaam mooy lëj-lëju ilmu tasawuf mooy iskaaliye lëj-lëj gi nag ñi làqar ci ñëpp ba ba fi dem lool la làqar ci ba ba ko fi muy seen xalaat mm-hmm. mooy seen xalaat waaw loolu la mm-hmm. waaw euh, gaa yi nu ñu demee ñu jiitu Sëriñ Tuubaa nu ñu demee ni nan lañu demee ca yàlla ba ñuy dem ñoom ñëpp juboo nañ ci ne ñoom ñëpp laa wax ñi di Sëriñ Tuubaa ñëpp ci ñaari école yëpp nazariya al falsafi ak sulukiya la xamaliya muy ñaari école yaa am ci tasawuf ñoom ñëpp juboo nañ ci ne pour dem ca yàlla fi ngay jëkk jëkk jëkk déparé mooy tuub ak retiré wu insihaab mais retiré wu de la vie publique génn ci lépp luy àddina nga seppe ca sa loxo waaw maanaam seppeeku ci àddina ba set wecc dootoo defar doo defare doo jàng doo jàngale da ngay daw àddina seppeeku foofu dañuy tàmbali ñoom ñëpp foofu mooy seen point de départ ak taw ba sëñ Tuubaa d'accord na ci départ ak taw ba wax na ko daañ ci ñëw waaye d'accordul ci principe boobu te bokkul ak dem principe bu mu départ waaw te moom daal ñu ci ni mu départ ñaare ba moo ne ñoom ñëpp jubóo nañ ne bu ñuy dem te yàlla ñoom ñooñu jumtuwaay bi ñuy jëfandikoo pour yegg pour mën a dem mooy mujaahadatu nafs al mujaahada mujaahadatu nafs gudd na maanaam du ci ñëw Oh, ndax moom rek moom rek ab conférence la waaye li ma ciy bëgg a wax rek moo di ne baaxut mën haj boobu baaxut bokkul ak ma jaaxatit nafs maanaa luxawi bi bu leen ko jàpp na noonu naa luxawi bi baax na waaye maanaa ilmi bi moo baaxul nañ ko jële ñoom ndax zuhaad yooyu ñoo ko créé ñoo ko ñoo ko jëkk sos tabax ko teg ko te ñoom dafa aman lu tax lan mooy mujaahadatu nafs ñoom dañuy gis ne bakkan dañ ko mën a yaree mujaahadaa ko moo dina nga seen seppi sa lépp ci àddina daw àddina bàyyi fa soxla nit ñi ak seeni problème dem nañu sax ba ne sax takk sa jabar sax waroo ko def ak am doom waroo béy waroo dimbali kenn waroo déglu kenn waroo dox lu baax waroo wax lu baax da ngay génn àddina tëju yàlla santaanewul loolu yonent bi du def ko sëñ Tuubaa santaanewul ko loola mooy almaana taqlidi li mujahadati nafs boo tax kenn du ko bind te di ko bay na musdari jëtee ni wala boo koy bindee daa da koy xongal parce que ab concept la du baat mafhum la du mufrada waaw moo tax ñu ne man man haj bi baaxut te fam lay yóbbu du baax ndax fam lay yóbbu mooy li taxal yàlla bind la dañ ko fay baax daw responsabilité naan da ngay yàlla baaxul moo tax ma ne baaxul te ñoom ñoo ko wax suuf yaa ñoo ne baaxul ñu fiy ak ñu ciy baax gastu ci jamono ji ñu toll ku mel ni docteur Ousseynou Moroua ku mel ni docteur tey nii ku doy ne ku mel ni docteur Mohamed Abid Jabir yi ñi ñi de ñett ñi gën a mag tey ci xaalam islam yi ci gëstu ci tasawuf juboo nañ ci ne mazhab bi baaxul waaw ñetteel ba mooy te ñoom te suuf yaa bi yëpp mën xaj boobu la ñu dem maanaam loolu dama ne amul exception amul kenn ku ci mucc laa wax kenn Ousseynou wa nee na soo demee ci téere bu ñuy wax annazaatul madde fi mustabatul arabi islamiyya gis ustaas yi nga dem diggante deux cent seize deux cent dix-sept nee na euh, haadihi al qaayida muy manhajul mujahada mooy maa ko wax directement rek ci wolof mooy xaayida bi nga xam ne mu su bi ko suhaad suhaadul jiilul awal sosee ba teg ko fi mbooleem suufiyanke yi ñëw seen gannaaw yépp ba tey jii bi moxtali ak seeni wu lu ñu wuute wuute ay école ak lu ñu wuute wuute jamono ak lu ñu wuute ay réew ñoom ñépp manhaj bii la ñu jël jëfandikoo ko mu far mu far mujj nekk royukaay ci mbooleem suufiyànke yi loolu mooy tekk li mu wax kenn mucc ñoom ñëpp moom la ñu appliqué parce que avant Sëriñ Tuuba amul beneen mën hëj bu bees ci tasawuf benn boobu rek mu am ci ku ma mën a wax beneen na ko wax amut benn boobu rek mu am ba ni Sëriñ Tuuba ñëw radiyallaahu taala bi ñëw gis mën hëj boobu dëppoowul ak li ko yàlla sant maanaam waxuma jaamu yàlla gi rek de waaye mission bi ñu ko yenn mu war koo dox dëppwul ak dëppwul ak méthode boobu du du dem du dem mu tax mu teg ko fële waaw jël nag maanaa diini ba rek jël na ko muy jihaadu nafs jël na ko waaye du ne du daw jihaadu nafs du daw déedéet man ngaa xeex ak bakkan neneen bu gën a metti boobu te te nga tabax ay état nekk ci biir guerre ba nekk ci biir tool yi nekk ca daara ja man nga ko waaw misaalu dalika tariq yoon wii mu dox ndar ndakaaru ba ji ba euh, maayomba ak juróom ñaari ati maayomba moo gën a métti mbooleem ni suuf yaa ngi daj jihaadu nafs waaw moo taxit lam ca jële ñoom ba muy eggee ca yàlla amuñu ko lu wér laa leen wax non waxuma wu bàkkan loolu dama am nay firnde te lii may wax bind naa ko aussi te dana génn te ñë kuy bind nag muy génn ragu loolu yi ngay wax waaw loolu la ñetteel ba moo di ñoom ñett bi ñuy dem sofiyanke yëpp lu jiitu Sëriñ Tuubaa bi ñuy dem ñëpp laa wax de ak ñoom ñëpp samay sëriñ lañ waxee xam-xam la kenn ku ci nekk bi ngay dem sa bopp nga tàll da ngay daw da ngay rocceeku sempeeku retiré wu daw pour sauver sa bakkan waaw boo yeggee ci yàlla nag ne sauvé nga toog da ñu ne loroon si nga ne man de xanaa màqaama daraja kon ñoom ñëpp bu ñu dem dem ci yàlla bëgg na ñoo xam yàlla bokk na ci raaya ba objectif ba waaye bokk na ca xemmam maqam ca yàlla wàcc wàcc ca yàlla daraja euh, beneen bi moo di ne waaw kon ñoom noonu la ñu dem ñu ñëw nag ci ku baax ñu xool afan ah, des na beneen juróomeel bi moo dina ne ñoom ñëpp itam dafa am benn système bu ñu bokk bu loo xam ab système la ñu tëral ko te ñoom ñoo ko tëral juboo ca ku ñëw nag seen gannaaw ak ñoom itam ba ñuy dund da nga cay tënku maanaam système la ñu tegal ko wutul ko ay régal ku ñëw da nga cay tënku ñu di ko tuddee man lu matul maqaamaat suuf yaa ngi yëpp ci tënku waaw muy juróomeel bi léegi nag boo nu ñëwee ci ko baax bi radiyallahu taala anhu moo di ne moom Euh, gis nañ ne yoon yi mu jaar bi muy dem ci yàlla ak solution yi nga xam ne moom la indi ci problème yi nga xam ne mooy laj laj tasawoo ak ak tontu yi mu indi ci laaj yi nga xam ne iskaale tasawuf moo ko posé mboolem koy sufiyanke mu tontu ci nun nun ak ñeneen ñu ma xam ba ci naa ci li nu xam ak li nu gëstu mos teg suñu bët ci taarixu tasawuf kenn ko mos jaar ci yoon wu mel noonu gisuñu ko gisuñu itam kenn nga ko mos kenn koo xam ne mas ngaa andi solution yu mel noonu gisagul gisagul kooku kon wóote naa ñoom ci foofu Euh, moom sëriñ bi awalan bi mu jógee di départ di wuti boroomam waaye dañuy wax sax dañ jëkkee moom ndax moom dafa wël bëti yëf yi bokkul ak ñoom tënkuwul ci benn système bu fi nekkoon te loolu dafa am lu ko waral tënkuwul ci benn système dafa am lu ko waral ñaareel moo di ne moom bi muy dem deful ci xelam xemamul leneen lu muy bëggal boppam te ñee dañoo bëggan daraja moom xemamul woon loolu nekk lu woon yitteem mu tax tënkul woon ci li lay yóbbu li yóbbu nit ñi ca loola waaw lu sew la waaye lu am solo la ci la sew ndax foofu la rawee ñëpp ci ixlaas moom sëriñ bi mm-hmm. ku dul moom dégg beneen bi moo di moom retiré wuwul fi point de départ d'accord na ci tawba tawba bi d'accord na ci euh, ndax euh, bu nu ñëwee ci iraad daañ ko wax waaye fi mu d'accord wuwul ak ñoom mooy rët insihab moom sëñ bi dafa départ point de départ fi mu jëkk jëkk départ mooy atawbatu wal iraada hmm. wal iraada min hal murid iraada ni ko niñ ko firee ci tasawuf mooy asuluuku tariqal xaq mooy nga soobu yoonu yàlla ñu ne waaye nag moom iraada boobu bu fekkee bu fekkee loolu lay firi soobu yoonu yàlla am na charte boo xam ne la budda minhu boo xam ne mënul ñàkk mooy lan moo di ne dafa am benn barrage iraada dafa am baraas boo xam ne faw nga dindi ko barrage boobu mooy moo yiir murid bi nga xam ne moomu am iraada ndax al muridu huwa saaxibul iraada kon baatub iraada ci la baatub murid jóge murid bi nag mooy kan mooy ki sóobu yoonu yàlla yuridullaha taala kooko nag dañ ne moom iraadaam boobu du mën a mat mukk ba mu gis yàlla ndax dafa am barrage digganteem ak boroomam ñu ne barrage boobu nag ñeent la almaal mooy alal aljaah mooy daraja almaasiya mooy mooy yàlla ñeenteel ba mooy taqlid taqlid waaw maanaam fanatisme ak roy ak roy euh, maal am na lu koy dindi Euh, maanaam xijaab euh, maal day yiir nit ki digganteem ak borom maanaam alal ah day yiir xijaab la kiiraay la am na lu koy dindi euh, am na lu koy dindi kiiraay la daraja am na la koy dindi kiiraay la taqlid am na la koy dindi kiiraay la waaye xam nga yooyu yëpp buñ ci bëggee dugg tey duñ fi jóge waaw waaye lu ci nekk Sëñ Tuubaa teg na ca baaraam wax ko waaw te daañ ci daañ mën naa am dañ ko joxoñ ci bala ñuy yeggale njàmb waaye tomb yi laa bëgg a yeggale bi ci des bi bi muy jógee di dem di ca yàlla bi muy yàlla moom demul ngir sowe bakkanam ni gaayee deme déedéet moom dafa demul itam moom ngir am daraja déedéet moom da doon dem ngir ñett benn moo di ne li tax yàlla bind ko mu matale ko ñaar ak yàlla jëpp mu jox ko ko ak sellal ñett moo di ne ngir am ngërëmam ñeenteel ba mooy ngir sowe jaal waaye bakkanam yóbbuwu ko bakkanam yóbbuwu ko sowe jaal ko yóbbu kon wuute gi dërëngër wuute ci des mooy ñi doon ñi tukki ñëpp bi ñuy dem suuf yaag ko jiitoon ñëpp dañoo jóge ci suuf wuti asamaan mhm. dañoo jóge ci minal adna ilal ala mhm. ñoom yaakaar nañu yoon mooy fii ngay jóge ci wuti asamaan foofu la yoon wi nekk mhm. mel ni avion buy départ Sëriñ Tuubaa nee waaw moom mu gis yo ndax li tax moo ñee dañoo gisee sifaatul uluhiyya moo tax ñu gisee noonu sëñ Tuubaa ne moom bi mu ñëwee radiyallaahu taala anhu dafa gis ne digganteem ak boroomam ni mu xoolee boroom da xool ndax wargaal wormaal gum ko wormaal ak tawaadu gumu tawaadu ak fonk gum ko fonk màggal gum ko màggal mu xoole ko boroom mu xoole ko boroom rabb xoolewu ko allah rabb nag sifaatam mooy sifaatu rububiya kon sifaatul rububiyya bokku ak ñële jë sifaatul uluhiyya lañu doon xoole yàlla sëñ Tuubaa ñoo xoole yàlla sifaatul rububiyya sifaatul rububiyya nag mooy lan mu ne kii ngay xool moom ab boroom la yow moo moom mu ne nag kon alaaqatu mar ar rabb wal marbu diggante buur ak jaamam seen diggante diggante ak njaamu jaamu la mu ne kon man fu ma jëm man kon kay man jaamu ma war mu toog demut dafa des ci suuf demul asamaan ci suuf la toog jaamu yàlla jaar ko fu ko kenn jaarut ci xidma waaye ci gàttal ndax loolu itam tomb la bu xóot waaye bu gudd aussi waaye jaamu ko gumu ko jaamu toog ci suuf ni ma ko mën a tënke mooy dafa jaamu yàlla ci ay ci ay yellee fa moom yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla ci garab yi jaamu yàlla ci bayima yi jaamu yàlla ci mboolem waraa ndax dafa matale al ibada al ibada bi mafhumiha alchamil al ibada bi maanaha al jaami maanaam da ngay sa sa deet sa bakkan sa ruux sa xel sa yaram say noyyi sa deret say loxo say bët sa tànk sa lépp say doom sa li nga moom sa sa waxtu say droit lépp lépp da koy investir ci yàlla ci jàmm yàlla totalement te boo bàyyee benn minute boo ko boo xam ne sàggan nga te nga ñàkk waaw loolu kooku dafa jafe ak may la loolu moom rek la ko yàlla masa may mm-hmm. eh, mu mu boole ca mu jël mbooleen xeetu ñu masa jaamu yàlla yépp ci ci yenante ya ba ci moom ku masa jaamu yàlla laa wax ak képp koo xam ne mas ngaa def tawasul ci yàlla ngir te tawasul ak taqarrub bu ci nekk mu boole moom sëriñ jaamu ko taw sëñ bi tawasale bi jàmmil mu tawasilina kum képp ku mas a tawasul sëñ bi tawasul na ci moom jëlal si ndiir yaag demal bari xasaay ah, tufaak yee ci àddina bi ba ci seydina sëriñ bi tawasul na ci moom ba noppi ñaanal ko ngir jaamoo ko yàlla ku mas def loolu ku ko mas gis ci benn téere na ko wax amut et cetera mu tawasul ci malaayka yépp tawasul ci asmaullaah yi nga xam ne yàlla wunu ko kenn fee ci alquran tawasul ci tur yi nga xam ne junni junni tur yi nga xam ne yonente bi am na ko ak malaayka yi te feeñu fenn mu tawasul ci tur yooyu ba pare rek tawasul ci nun nun ñi maanaam nu mu tawasul ci mooy liggéeyal nu ñaanal yàlla mu jéggal nu ñaanal yàlla ñu texe loola mi ngi tawasul ci ñun ci liggéey bi ñuy liggéeyal ñun ngir ëllëg tawasul la taqarrub la ilallaahi taala mu tax moom yàlla da koo déey loolu mooy ngir Sëñ Tuubaa yàlla da koo déey da ko jaar na fii loolu waaye mu xel du xam-xam ndéey la loolu nag ba mu ko liggéeyee mu jaamonoonu yàlla lu xew ni ma ko mën a firi ci wolof mooy sëriñ bi fi mu toog di jaamu yàlla la yàlla jël la gaa yi doon wuti wuti ñu doon leen asamaan lañ doon wuti ci daraja lay sëñ bi jël wàcc ko ci suuf jox ko sëriñ bi gaa dem ba yegg mu leen kële mooy séddale. macha allah gaa yi wàcc gaa wàcc euh, ay am naay firnde waaye tënk bee tax eh, ci lépp am naay firnde eh, ak ak i ak i abiyaat léegi bi loolu amee daal xam naa euh, bu loolu moo a sëriñ bi su ngeen xoolaatee xasaay bi bu baax ñu ngeen ngeen analyser ko bu baax ngay gis sëriñ bi dafay dafay répété dafay baabu lu bare bare bare bare ay expression xaadal yi jaadal yi yen xaadal yi yen xaadal yi saaqal yi yasuqul yi jëfëbal yi allah dañ ko andil hmm. ndax daa na ci li ko war mu def ko gën gi anam bi defi suñ boroom moom malaayka yi bëgg ci moom yonent yëpp bëgg ci moom ba awliyaaw yi sax di wuti yàlla bëgg nañ ci moom yoon woowu nag la jaar yàlla yoon woowu la tukkee moom bu demoon ci asamaan di wuti yàlla du mën a dem gabam Euh, xam nga yow yëpp da nga koy jommale ba noppi ndax fii dafay bari xam nga koor gi koor gi li lay xamal ne ne li ñu am kenn amu ko kër yeeg jàkk yeeg ëtt yeeg fu ne gone yi alxuraan ju rafet joo ne yow da lay nga xam ne sax doo daanaka yow da nga dootoo ko jàppate dara dootoo ko jàppate dara fi ne ñun ñi nekk ci dëkk bi formé woo ci sëriñ bi loolu daa bare bare bare bare ba yéematu la léegi nag am ku taxaw fee ci ginnaaw di la woyafal lii nga nekk di la woo ca lam ne léegi nga man-man ni ba dem yëri ko ba nga demee ba yëri ko ba noppi mu ne la waaw yow li nga nekk daal sëñ bi ay bokkaale la nangam nangam nga wax a wax a wax ba ne ah waaw waaw léegi nu may def mu war na la lii mooy sunna li mooy nangam nangam nangam ba nga nangoo bàyyi la nga nekkoon nga reculer nga reculer ci la nga nekkoon te mooy lii mu ñu wax nag buñ buñ ko fi bàyyee dara duñ ko gisaat waaye léegi nga reculer ba noppi nga nekkoon nu may def mu ne waaye ah ñëw ci tënku ci sunna iltisam comme ni ko gars yi waxee nga nga def iltisam ba noppi nag toog fa ñaari fan koor gi ñëw mu ne soo sooy jiteel nga jite jàkk ji yow ko yaay dongo bi fa nga jógee dara baaxul fa neen waaye bu koor jotee yaa fi jiite yaay jiite ndax fee dara baaxul fa nga ko jëlee fee dara baaxul fa ko jëlee léegi soo amee markazam école bi yaa jàngale bi yow mii rudd dara lu baax yaa ciy jàngale de ndax fi ne majaalis yi téere téere yi eh, maqamatu xari yeeg ay soxraawu jeeli yeeg maanaam ay ay ay ay fiq bu wér dong la mazhabul maliki bu wér dong am na ñoo xam ne dara mënul ni ta wax ñaari masala yi mat fi ne atte fa rot yow mi nga xam ne fa nga jóge baaxul <laughs> yaa yaa koy yaay jàngale ah te te te eh, nafsaaniyan yow yow yow jikko yu rafet yi nga amee ci barab bi yow fañ la yare ci nangu kilifteef la nga ko nangul fi ne fañ la toqee tax yow la ko nangul kenn du ko fa nangul da nga ko jox warma cheikh nga koy parce que yow loolu la ci lañ la tàggatoon ah ah murshid nga koy wooyee nangam nga koy wooye maanaam daal daanaka yow lim mënta am ci kenn ci la koy am yow boo jàngataate sa bopp war ngaa xam yow mi yaa dox waaye fa nga nekkoon a baax fi nga nekkoon koy bu fekkonte ne baaxut boo fa jógee boo ñëwee ci nga toll topp waaye fa nga nekkoon soo fa jógee boo ñëwee fii kanam jàkka jege jëm moom ndax bu koor jotee moom yaay tari alquran njàngale ma yaa cay raw yaay jàngale lu ñu fay def ci lu baax lu ne kenn du la ci jiitu kon nañ xam ne ñun liñ am muy Serigne Touba kenn amut lu na toll kenn sax séenu ko li war a def rek mooy ñu tënku ci moom wax na lu am solo ci biir wax ji yaakaar naa seetluwuñ ko dafa wax ne yoon wi daa am ndono am ay valeur ah ndono mooy loo xam ne dañ la ko fee bàyyil maanaam ndono lu ne nag la la la la nekk ci biir moo ko valoriser la nekk ci biir loolaa tax mu am valeur léegi li li li nekk ci biir ci ay njëriñ li ci nekk ci ay jikko li ci nekk ci ak mbaax li ci nekk ci loo xam ne doo ko gis fenn fu dul fii yooyu war ngaa fexe ba waggar ko ba doo ko jaawale ak la neen war ngaa waggar ko bu du ruusa ci say loxo waaye léegi yaatu dënn gu tal ne borom gis ngeen nim jaamoo yàlla ci façon yépp jaamoo ko yàlla ci mbindeef yi ñaanal leen intervention seen diggante ak seen borom waaw noonu la bëggee woon euh, mbiram mi àgg fépp waxi jamia almuslimina ya xafiz wa min yaqbal fikrati ma dafiz a fikra alxadimia sëñ bi bëgg na ma àgg fépp ndax moo mën a solutionné jamono tey ñun wax na fii ne iskaliya tasawuf yi ci sëriñ bi tontu te mu bari te tontoo ko ci façon yu leer da caa bokk benn rek tey jii même islam rek bi si fa am ma tey islam islam islam rek àddina bi koy laaj question yu bare bare bare islam tey ji yoonu murid rek lañ ko waroon a laaj tey lañ ko waroon a laaj maanaam fu mu génn kenn du ko laaj ndax léegi al islam la unf bi nga xam ne tey jii moom la Sëriñ ba indi muy tarbiyatu nafs walla axlaaq nga xam ne nit ki day nekk koo xam ne day nangoo jaam yàlla am jikko yu rafet nangoo sonn nangoo wut bu nangu wut ba pare xam ne tiyaabay wut xam ne tiyaabay def ci yàlla ndax wax na ne li ñu sëñ bi bàyyil bokk na ci yoon wi yoonu joxe addiye la jaam yàlla la dimbali ko tane la def lu baax la infaq fi sabilillah mboolem yooyu ñu la woon ba mu bari tey jii murid yi nekk tey ca Europe li ñuy njëkk a def mooy jënd kër kër yooyu bu ñu ko tabaxee ba noppi jamono yi ko xam ne sëñ Murtada mi nga xam ne daanaka eh, yaa waasi'an wasta'tali bil murtada nga xam ne daanaka sëriñ bi dafa ta tajalli ci moom ci biti ci ak dundam feeñal lu bari ci jëmmam ji moom moomu kër yooyu na nañ ko tuddi kër Cheikh Khadim waaye kër lislaam lañ ko tuddi kilifa diine gu wàcc ak foo bokk ci taifa boo mën a bokk kuréel boo mën a bokk boo ñëwee di ab jullit boo ñëwee fa ngay daal ba am foo dugg waaw jumaa yooyu ñuy lijjanti wala jàkka yooyu ñuy lijjanti ci Europe foofa bu ñu fay julli kenn doon wax na fii ab murit a fay wala nangam sëñ bi daa tontu yu bari mooy aw nitam fu ñekk nit ñu jub la ñu doon ñu xam lañ doon la ñu doon ñu amal njariñ seen bopp la doon amal njariñ comité bañ bokk ba noppi ëmbaale yërmaane mën a njariñ ñeneen ñu dul moom xam nga ma day lu yaatu xidma ma ngay def ci sa jëmmi bopp ba nekk ndax xam nga Cheikh mun Mountakha wax na ne ginnaaw ñun dañoo jox suñu bopp sëriñ ku ne da war a defal sa bopp ba mu baax ndax ku joxe da nga baax taalibe bi na yëkk ci boppam ba léppam baax waaw mu yéwénal nag lim bokk na fexe mu baax te fexe di taxaw ca la koy baaxal bu la nga bokk baaxee nga baax lépp normal nga ne kat li nekk fee war a nekk fépp nga am xelum foo seen dara jàpp ne sëñ bi ko waroon a yeesal moo ko war a defal te itam ci liggéeyam la bokk wa aghnina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma kon loolu sëñ Tuubaa mooy koo xam ne tontu yi àddina laaj jamono laaj ko lislaam laaj ko mën na ko tontu aw nitam mën ko tontu. maanaa dalika loolu mooy kon nañ téye ci sëriñ bi te ngoy ci te buñ ko jëndeeg dara buñ ko weccoog dara nañ gëmm suñu bët taw ñu gëmm suñu bët nañ tëj suñu xol bu bëgg dara bu mu xalaat dara bu mu xool dara loolu suñ ko defee insha allahu taala danañ mën a am takaafa te it nit su culture sëñ sëñ euh, docteur Ahmad docteur Saalihu Salaam wax na lu rëy de xaw ma déglu nañ ko mu déet dafa wax ne adduna bi geerum ndono moo fi des geerum ndono ku ci ne yaa ngi jéem a njëkkante pour sa tawajud wala sa wujudee wala sa sa sa sa existence kenn ku ne yaa ngi lijjanti noo nekk tubaab yi nga xam ne tënkuwuñ ci pas-pas sax ci résumé adduna bi rek lañ tënku lañ tënku du pas-pas ñu ngi indi li ñu am ci marché bi daanaka xaw nañoo occupé marché bi ñoo ñoo fi ëppale marchandise ñi am ay pas-pas ju du diine occupé nañ fa bare bari ñi ñu bokk lislaam sax am na ci ñoo xam ne seeni njàngale ñu koy taxar fu bare bari waaye ñun li ñu am muy koo xam ne li mu feeñal ci xam-xam feeñal ko ci ragal yàlla def ko ci jihad def ko ci yeesalaat lislaam def ko ci feeñalaat xam-xam andi ko ci ay ay ay argument yoo xam ne ci tasawuf yam fekk fekkoon yam ci war a naq naqd critiqué da koo critiqué ba noppi indi ci solution nga xam ne doo ñëw rek tasaare li fi nekkoon te doo fi indi dara lu mu ca d'accord lu ne andi na fa badil kon war nañoo xam ne kon ñun ñii kat am nañ place ci marché bi ñëw bu suñ marchandise te awa am na lu am solo loo waxat te yóbbu fa luñ mën a jaay ci la ngay déggee ne kon marchandise léegi-léegi nga yor ko yàgg nga tax. mu am ci ay yëf yu ca yoo xam ne lii sañ sëñ may jaxate lu yàgg am xumaat kon booy jaay ci biir marché bi itam nañ yóbbu marchandise miñ mën a jaay su ko defee ñu jaay ko ca marché ba loolu mooy xemmeem loo gaa yi ñu ñëw wër bagaas yi ku ne tànn la nga bëgg ndax li sëñ bi yor moom lu lu jeex la lu yaatu la kon xam naa ne nañ tënk foofu su ko defee ñu ngi sant euh, docteur Salih Salam di ko xamal ne wax dëgg yàlla waxtaan mi andi nga ci lu kawe njort yaakaar naa leer na nañ ñi te li waxoon ci biir na fiqa nga ci yoon wi sa conférence bii tey borom xam-xam yi gëstu ci yoon wi ñoom la waroon a dajale ci barab nga ard leen ko ñu am ci ay question yu xóot nga tontu leen ci waaye nag fa leen xam ne baax na ndax jël nañ ko yaakaar naa dana jàll ci tasukaayu xibaar yi daañu ca am ay jàngat yoo xam ne daañu ca mën a gëstu te jombul da daañu ñu ci mañ laaj lu leen ci lënt su ko defee du ñàkk ñu jox sëriñ mu soo Diop kokki moom itam mu waxtaan ci li sëriñ bi doon waxtaan mooy sëriñ bi ak tasawuf mu euh, jot li ci dara rek su ko defee buñ nappee sëñ Abo sa fekkee am na ay kilifa yu jël kàddu itam ñu wax ñu ko ñu mën a jël kàddu di ko dala ci sëñ Abo say moomu ak sëñ Abib bu Saaxoo ak eh, sëñ imaam ñëpp rek ñu ngi Seydou Samsu la moom eh, ñëpp rek ñu ngi leen koy ñu ngi leen di siyaare xanaa kon di di ci nag teg nag sëñ Saliou Salaam ñu xam ne moo doon def waxtaan wi ak sëñ Fallu si leen mi nga xam ne moo ko ko doon jiite xam naa sax fir ko sax waxtaan wi dëgg yàlla ba xam ba xam dëgg dëgg dëgg sa Saliou Salaam fan la jaar maanaam sëñ duwaat tasaw sëñ duwaat ak tasaw foofu xam naa wala boog eh, xalaatam ci tasawuf ak ko doxalee yakaar naa su ma doon kii man dama ciy wax ne rek kat Sëñ ba mu ñëwagul nu nu mu fekkee woon tasawuf mel ko mm-hmm. yaakaar naa loolu loolu xasee jiitu rek dana daal di di leer mm-hmm. tasawuf moom na mu meloon njëkk sëñ Tuubaa fi ñu toll noonu la mel delluwaat na ca ndey ja ndax Masalik nee nee naa ci mbind ak ci wax ne leen Masalik sëñ Tuubaa da euh, mooy la la mu rujoon lépp jébbiwaat na nga xam ne kon ëkk yee jébbiwaat na kon moom léegi la mu fekkoon mooy société Masalik ku jinaan nga xamante ne diine jéeg lépp jaxasoo sëriñ si ànd nañu ngóor gi borom daara yi jël lasaraar beeg njabar gi lépp dugal ci ci biir daara ji loolu lépp nga xam ne moom kon na na ko sëñ Moussa Ka di waxee ci isaaw sakoor bu géej gi rek euh, maanaam noona la euh, sëriñ ak sëriñ booba ci meloon sëñ Tuubaa dikk moom ngir ngir yeesal loola da am na koy laaj sax ab laaj noonu question nga di rek la wala dafa jaar yeesal gi gi moom moom si Tuubaa wax na ko nee na maanaa yeesal gi mooy aw ci ca yoon wa rek ndax boobu booba alxuraan ni nga xam ne xam xamewoon nañ ko ni ko ko ko mokkal masaa def ci laawaan maag soo bëggee soxna soo mokkal alxuraan soo bokk soxna yi doo ko mën a am faaw nga mokkal xeet yu mel noonu daal moom alxuraan yi dañ koo marsanalisé woon surtout dikk nag daal daal koy joxaat gëddam lool kon kon kon moom yàq-yàq yooyu xam ne moo amoon suñu tubaab bu dikkee moom lu ko fi dindi de da doon def damay wax nag loo xam ne maanaam faradiye la bu matat ba xel mooy sintuwaagat dafa fekkoon dara muy tees maanaam li fekkoon société am tees la woon sëñ tubaa sëñ dàq ko muy andi tees andi lu bees muy synthèse waaw léegi nag yow mi di doon synthèse nag boo toogee turi doon tees waaw ah, ah, léegi nag loolu moom ci xam-xam sëñ sa Salaam eh, noonu noonu la addunay doxee tabax bi saa su noppee màggat na mbubb mi soo koy sol màggat na kon ay ay ko te maanaam tey jii kat eh, waxoon naa ko bu yàgg Daaru Minam ne leen kat islam yi ñu ngi ci bunt bi ñu ngi fëgg te te faw ñu dugg moom loolu loola antithèse la moom moom la ñuy def li fi ne ah li fi ne moom faaw moom faaw aajowoo na antithèse ñoom it su su su boobaa ñoom it ñu nekkaat ma thèse wala seen thèse bokk doonaat doonaat thèse loola kon moom eh, murit gi Sëñ Tuubaa jamonoom na mu doon doxee mystique xam nga noonu li ñu dund nun ñii kenn xam nag lu mu doon maanaam loolu daal jébbalu dafa am benn waay ci état bi ku jubaloon ci sëñ Saliou ba mu jubaloo ba noppi ba mu génnee daal daal di après nag ci ci après jubal na ba noppi sëñ bi ko mu daal di génn jëm Dakar après kon kooku tontu la kooku ko ab laaj la question mi du dig la ba ma jógee Dakar am noo mel ñëw Tuubaa jébbalu su ma ñibbiwaatee xanaa war war naa am lu soppi ko ci man xanaa. wala ah, dara daal dara loolu loolu boobu boobu question am amaguñ koo noonu tontu bi maanaam tey jii yaakaar naa am na eh, yenn kër yoo xam ne soo fa jublu woon ñu dul murit soo fa jublu woon am fa at soo ñibbisee si sa kër ñoo xam ne yow am nga foo doon naane lii naan kuy naan di ko nëbb bu jàngee ñe ñoom soo fa amee at léegi maanaam léegi eh, nu ñu ko waxati sàngara sa gand la bu dee fii nag noonu man nga fi am fukki at te sàngara du la gand loolu loolu question la maanaam nun fi toll nii nguur gi léegi ci lim nekk rek mooy ay mbootaay ak ay dayira ak yooyu lool sëñ bi du murit sëñ tubaab xamutoon loolu xamutoon ay mbootaay ak dayira xamu loolu moom yi fa dund la maanaam ñu bëgg a seen seen dund képp la waaye du mystique tasawuf sëñ tubaab daana joxe ay tur mag ñi ku jëkk ñëw fi moom mu jox la tur aw tur nga dem ne ca loolu ma mag ñu bari la ma mag moo laaj am na ko euh, waaw nga xam ne sëñ Samba Diop Saam ak sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ak ba man mi sama maam sëñ Manar ñëpp rek euh, taarix yi nga xam ku ne rek si doy jox na ko tur waxu waxuma nag Maxuus wédd Maxuus moom leneen la kooku moom képp ku bépp bépp murit bu bëgg dox da nga ko war a jëfandikoo moom obligation la ci ko bëgg a dox waxuma nag murid bu bëgg a bokk rek ci dayre bi nii ne murid laa waxuma loolu de waaye murid boo xam ne da nga bëgg a dox faw obligation da nga a jël wirdu bi ndax connexion bi ci lay mën a amee maanaam nu ko waxati eh, ataaluqu yaxsulu bi axsil wirdi sawaan saabal xidmata aw lam yusa hibha kon léegi yow jëbul suñu waa dëgg dëgg dëgg dëgg jël wirdu bi moo koy confirmer maanaam ne sart la waaye confirmation lay joxe kon moom te fi dool kat am na kilifa yoo xam ne sax du jëfandikoo wedd bi for donc yi moom jëfandikoo wuñ ko ñoom kon kon kon kon kon moom yow maanaam eh, nga xam ne yow léegi murid bi moom jullee woor na te asaka dem Makka mu jeex waaye xamut sax maanaam mystique du doxu ci mystique mystique mooy werd te tasawuf moom da ngay werd da ngay jëfandikoo dara ba yëg dara ba xam dara waxuma yëgu nag ci ci gone yi wax léegi yëg ak yëg waxuma loolu de yëg gi laa mooy xam laa xam xam dara xam dara fuñ mas naa koo wax gédé gu ndaw aw waxtaan buñ ma fa woon sëñ am di bu bu so yàlla na fi yàgg lool tuwér waaye ma ma may leen gédé gédé ku ku fi andi woon neexal boo xam ne di wax ne ndax diwaan am na diwaanu aarifina bi lay ndax am na dëgg dëgg ma ne kon neexal ba dana ñibbiwaat ñibbiwaat kenn du ko kenn du ko tontu ñu la mu ci jublu du kenn de Tuubaa gépp la Tuubaa gépp <laughs> maanaam doon aarifiina billaahi loolu ki ci culture tasawuf la lu ñu war a xam la lu ñu war a dem ba ca barab ba la gis yëf yi xam ne lii la sëñ bi koo xam ne xamoo ko sëñ bi doo doo kenn ab suufiyanke boo xam ne xamul diiwaan mënu koo waat di mu fa xamul mbooloo ma du kenn moom te murid la la bokk ci maam su sunu murid gii sëñ daam sëñ am setu jaxate nekk dugg na néegam tëju tëj kër gi lépp sëñ Tuubaa woo ko ca barab ba mu dem wuy ji ko ba muy ñibbi si dafa fëgg këram loolu loolu loolu mystique la tasawuf la tëj sa néeg jékki-jékki dem ca jumaa ja ba ngay ñibbi si da ngaa fëgg sa sa kër loolu amoon mat laa min gay ca Louga parce que di ci ci ci dem bañ dikkee saxaar ga noonee eh, maanaam toit bi mbooloo bari na toit bi fexe ba nax mbooloo mi ngeen gën dugal ci wax yi ñu dugg ko fees dell toit bi daal di bopp bi ñu yóbbu Sëñ Tuubaa Sëñ Mat Lamin Gay Sëñ Tuubaa nee woon na ko moo keneen fat naa tur wa yéen a may wàcceel sama bagage yi maanaam ba saxaar gi déparé ñoom ñu ne ah suuf bi ñu luy def ñu ne kon nañ tekkale suñu mbubb yi daw te gëmm ba saxaar ak seen ñoom ba la si gisee ngeen loolu day yéen a ko jële fii kon loolu mooy connexion ak tayyu ak tayyu ci tayyul makaani yi wa zamani yi suñ bi loolu du du lu ñuy wax lu am la maanaam du du ay baat yu ñuy wax wax nii rek sëñ Tuubaa sëñ sëñ Isaa jenn ba ba ba ba sëñ Tuubaa si Isaa jenn ñëw si sëñ Tuubaa di ko di lool daara joo xam ne maanaam tuutànke ñooy waxtaane lii xanaa xanaa xanaa di fi firi fii rek la am waaye loolu ama tuddal ama tuddi maanaam maanaam jotaay benn bu ñuy toog di waxtaanee xutbu samaan bi kum doon anamu kon loolu joxuñu de maa si tuwaat li mu indi moom far na waaw moom naa loolu maanaam li li li fi des mooy moom kay noonu ñoo fi des moom ay nit ñoo xam ne ñu amee intérêt di ko aar noonu noonu mooy noonu waaye si moom dem na moom dem na së sëñ seexu naa Mbakke ceeb dama ko ko laaj ne ko waaw seexu naa mag ña ma xamoon njëriñ anañu mu dem ma dem ni ma ne ko waaw ndax ndax ñoo mënatuñoo dikkaat mu ne ma déet ka leen pikiroon pikir ba dem na te ab pikir dañ koy pikiré pikir moom mu mënut a jóg di pikir kenn moom lu ñu jël la di ko pikir nit te kooku moom dem na wax ju méttee méttee ngoogu ju am solo ma ma magi démb ñu ànd ñu dem nañ waaw ma ne waaye tawaasul ajiyaal ajiyaal yi dañoo war a am communication di wéy bu ñu dee doxee nii di di wéy sëñ sëñ dañ dox di di su kat doo ko fekk ci ab téere ndax ndax ñu binduñu doo ko fekk ci ay nit ndax nit ñi dunduñu ko xam nga sëñ bi sëñ Tuubaa mooy tasawuf képp la tasawuf képp la du du leen tasawuf nag lu ñu dund la sëriñ si gaal yi ñu yor turu yàlla yi nga fi fekkoon seen seen baay yor ko jële ko ci seen maam anamu nañ ko jëfandikoo jox ko nit ñu jëfandikoo coonaa ko sa yarafa Mbàkke ma ne ko sëñ bi yéen li ngeen yor génne leen ko jëfandikoo leen ko yéen jox ko dong jëfandikoo ko am na bis boo xam ne bis daaw rek ma matiku ko ay ay nasaraan yoo xam ne ñëw nañ Kawlax ji ba dem kees wéri di gu la man di di dal ci saasa lañ koy faj am na diw mbàkk sa sanga mbàkk jigéen la dëkk Kawlax jabet la yoroon jabet la yoroon ba mu demee dañ ko fa ci saasa dem hôpital ñu ñëwee ko gisatuñ dara ba ñëwee ci kaw la àngal ci lislaam ci àngal lislaam fa lañ fa lañ fa lañ dal ma ne ma ne loolu symbole la àngal lislaam quatre heures de matin lañ fay nekk ba bët set ku dikk soo tuddee Mouhamed ñu leen la déet tur bi moom da nga koy sensé da ngay tudd du met met soo tuddee met ñoo ñu man ci laa faj ma ne ñoo ñooñu xam ne sëñ Bass Coro dafa ma ko woo ne ko waaw yow sëñ nañ ko wax ne ko na génn moom na génn faj nit ji wala mu jël secret boobu def ko ci nit ñi ab jullit boo xam da ngaa am problème am nga problème yow am nga problème da ngaa jabet da ngaa wér di wér di ko xam ne mu seeni mënuñu ko faj kii di la mën na ko faj léegi léegi ci saasa ba def ko mu am ginnaaw ba sëñ Fallou Ndiaye benn xaritu soxnaam Dakar Dakar woo na ko ne ko ah, maanaam kat man ak sama xarit day wér di gi ñu dal kooka nañ ci ca nasaraan ya ba fañ nañ ko ndax man si si si naa ko def mu mu de ko déet suñ ko ma ma ne ko loolu duyut duyut de koo ma rek nga naa ko nga naa ko potin bi bul ko naan kooku duyut jox ko ma ndox bàyyi ko bàyyi ko mu naan potin bi sëñ Tuubaa tey noonu nasaraan yi di def am luñ dund ba am connexion ca ñoom soo soo demee ci raaya al ahbaar li su daa waxee ne salama yi ba gisam ba euh, rawoon na ahbaar yi ahbaar yi xebru mooy ñooñu dañoo am lu ñu def ci nasaraan yi am nañu ay tur ay tur yàlla yu def di di ko liggéey léegi léegi nun murid yi sëriñ bi moom wirdut wirdu moom wirdu moom wirdu dara sëriñ bi moom wirdu dara sëriñ bi daal yow da koy siyaare képp rek ngir ne ngeen ne doomi sëriñ diwa médecin la doomi médecin la doomi médecin la yow koy dem maanaam ne ko faj man ne xam ne a faj su dee su dee su dee ministre nag maanaam maanaam foofu xam naa ne nañu ci tubaab ngi jeex mooy loolu li indi andi woon mooy ñu dund tasawuf am na am na ca fa lay jeexale euh, Kébémer de ab dëkk la foofu de benn xale bu tudd du Xaadim Fay jóge na fa dem tërbiwu ci ab dëkk sàngam murit la génn dem ci ab dëkk sàngam tërbiwu fa ba ñibbisee gaa yi jox ko dara mu ñëw dëkk bépp jëbbalu ci moom génn ci ci ci murit gi ab dëkk ab dëkk ku fa dëkk ma ko wax de ba demee dafa am connexion ma ko dafa dafa dafa fi ñu toll yàlla la yàlla yi ñuy wax li ko waral mooy loolu dañoo yëg ne tasawuf connexion la du julli war ku ne julli war ko kon da ngay jébbalu da ngay jébbalu ngir yokkoo ngir dolli ko boo nag soo jébbaloo yokkoo doo dolli ko da nga jébbalu ba sonn waaye doo dolli ko loolu lu yaakaar naa si Abdou Samad Sylla mi nga xam ne ñoom ay doom soxna démb ñoom ñoom xam nañ loolu ñoom xanaa loolu te ñoom fi ñu toll moom mii. maanaam boo bu xoolee histoire am ñeent fukki at ci ginnaaw ak tey lim ci yokk ci murid gi bëriwul waaw loolu doomam bu dikkee doomam moom doomam moom bu ñëwee moom sëñ sam si la bëgg koo leeral ne ko kat yoon wi day nii la baax na baax na baax na Ahmadou du jaay ci ngiraan foofu lay tëjee dafa wax ne dafa am diw sàngam da man day sama baay dafay nekk naan dana baax dana baax dana baax ba dem bàyyi fi néeg néegum ñax la def wàcc néegum ñax la wàcc mu ne mu ne ah dana baax ji moom kon ba kañ bàyyam nee naa ko dana baax dana baax ba ba dem bàyyi fi néegum ñax si seen si ñooñu nag islamiste yi fa fekk ñooñu ñu lañ jël gis naa xam naa ci diw sàngam moo xam ne Mbàkke la sant maamam néegum ñax la la fa wàcc bàyyam néegum ñax la fi nekk ba bi mu génnee dem arab si ñu ñibbi si moo ko tabaxal fu mu nekk moom islam si ci dugg na ca duggee am na dara kon yëf yi nañ ko soppi delluwaat ci sëñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatulah eh, gën a baax nag nekk ku am la gën moom waxtu nekk da ngay sëriñ bi fa mu toll ku sañoon am taaliba yu toll foofa taaliba yu toll foofa mooy kenn ku ne ma xam ma nga am say donga dañoo war a nuroog dong yu mel ne yu yu jekk ci sëriñ booba kon wax ji lépp mooy ñun nañ fexe ba doon dong yoo xam ne danañ jekk ci sëñ bi ndax sëñ bi moom ne mel jekk dafa noppi kon loolu mooy wax ji lii sëriñ bi wax nii ne loolu fi ne jërut jërut maanaam ña ko li sëñ sëñ Moussa mi wax ña ko sudde am koo xam ne lam gëm du diine ñëw ci biir tubaa di def jooni jooni di faj muy wér loolu fi ne loolu loolu kër sëñ Ahmadou Mbacké Souhaïbou kenn waxuloo ma ko kër sëñ gi rek nit dana wér ñu bàyyi ko fi kenn du ko def loo dara fii rek la wax bàyyi ko fi muy wéral dong ci dëkk ci taxawal nekk boppam di lekk ka naan ba doo fi yàgg wér dem ñibbi sëñ bi sax amul jot ci man te lii may wax kenn wax loolu waaye man dama ko xam dong yi rek am na ci ñoo xam ne fi ne dong yi am na ci ñoo xam ne man toog naa ci jotaay fi ne yoonu mu defa xóot de sëñ Moussa teggin yi daa tax teggin naa daa mëdd lu bari waaye lépp ngi fi teggin yi daa mëdd lu bari masalan tey jëmtukaay yi nga xam ne Sëñ waa jox na ko sa maam am nga responsabilité ci mboolem taalib Sëñ Manaar am nga responsabilité ci kër Sëñ Manaar gépp maanaam sëriñ bi am na responsabilité kër Sëñ Masamba Kanni bépp responsabilité partagée la sëñ bi de ko décentralisé woon léegi ku ci ne lañ la dénkoon ci masuliya am nga responsabilité xool ko ba xam njag na war a jógub tax yiiraat am xam nga lañ ca dugal fa àgg jàpp naa dañoo bëgg lu gën waaye gis nga fi ne ba ci ba ci ba ci ba yooyu xeeti joxe tur yàlla yooyu yëpp sax ak tarbiya nit ci wér mooy dëgg-dëgg yoon bi mooy dëgg-dëgg yoon bi waaye amaan na tuuti ci escalier yi sëñ bi doon wax fi ne loolu ba tey juraat na problème ndax ndaw ñi léeg-léeg ñu xertal leen ci war na leen yéen amagu leen ruux bañ tëb di ko wuti te fekk na li nekkoon mooy ruux sëñ bi ndaw lu amagut fukki at mokkal alxuraan maanaam mosoo ko gis mu naan sàngara xamu sàngara xamu cigarette turu cigarette yi xamu ci benn dansin ba xamu ko mos ta dem ca ji ajjuma fii fii ñu toog di waxtaan ay ndaw fi loolu ab jéego la ci tox jëm ci yàlla suñ ko conservé yaakaar naa ne am nañ ay mabadi yu leer nañ yoo xam ne ah jàpp naa ne jëmi ko kanam am yokk ko loolu ab liggéey la kon su ko defee ñu gën a bàyyi xel ne mbir mi kenn du wax ne dara siku ci kenn du wax ne baaxut kenn du wax ne lépp jag na ndax àdduna moo bindoo waxtu wu nekk muy aaja ay yeesal di aaja ay jëm ci kanam waaye nag jàpp naa ne man day su may analyser damay jàpp ne dana baax dana baax de xam nga dana baax fii jamonoy sëñ son bi kenn daw toog fii di waxtaan loolu rek ak baax la fi ne fii sama xalaat bi mi fi wax sama baay mosu ko fa wax ah loolu rek avancement bu rëy la fi ne tey jumaay Tuubaa jee diira fukki maanaam fanweeri fan lañ fa sotti ci ay xalaat ci xam-xam ci ay mbir yu wuute nangu googu rek raxabatu sadre googu gis nga fi ne suñu kilifa yi jàmbaar lañ de man nag waxuma ngir sëñ bu toog nii man li wax ni sëñ Tuubaa laa gëm dib taalibeem yàlla laay jaamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa nekk sunnaam ñàkkuma teraanga yooyu itam awma teraanga ju bari waaye nag tooguma ci buntu kër kenn kenn yóbbul ma kenn yóbbalewu ma ci dara waxuma ngir par par la wala kenn wala bëgg kenn wala bañ kenn li may sama pas-pas la nekk ci man ma xam ko mu wér ma yëf yi mi ngi avancé bu baax a baax kenn fayu ma weer sa yow mi joxuma dërëm sa yow mais sa ñoom ñëpp dañ maa war a jox ci mbubb yeeg saako ceeb yaay kenn joxuma benn saako ceeb nag koor gi moom kenn joxuma ci kilo sukkar yoo xam ne man waxuma ngir faral seen kenn li may wax saa yi gëm-gëm yi bopp la maanaam yëf yii mi ngi nañ sant yàlla mi ngi dox de mi ngi dox dox yi mooy ndaw ñi niñ dañ ma le xam-xam nañ leen orienté tuuti rek mais buñ leen tanfiiri ba ëpp moom mën nañoo saawte wallahi li sëñ gisee sëñ bi ni wax nii bis bu ngeen dox dox loo ba génn kaara bi di jéem a wëri la dem maam du ngeen gis dara da ngeen li fi nekk mooy lëj-lëj bi iskaaliyaan yi dafa amoon nit yàlla yi seqoon ko kenn mënu ko jënd solution bi jóge ci sëñ Tuubaa suñu maam tontu woon ko lu tax lu tax suñu maam tontu woon ko tolloon nañ jamono joo xam ne gis la nga jàngoon ci tasawuf dong nga gis ko ñu pratiqué ko doo ko gis sëñ Tuubaa ñëwut di jàngale tasawuf de daa ñëw tabax ay nit tasawuf rek xam nga xam nga yow xam nga bu njëkk man ngaa jàng ci alquran ñu ne la gaa ñi wa min al-layli fa tahajjad bihi naafilatan lak xam nga loolu mën nga ko jàng ci alquran mais mais fi ne boo dëkkoon ku ci ne sa maam ku ci ne sa maam wallahi wala wala sax ku ci ne dëkk nga ak sa bu guddi gi xawee sori tuuti maanaam day tal am ngànji ba fajar yor kursa ndax day am gone gu koy xambal mais <laughs> gone googu ko xambal sëñ bi dana am lu mu ci buy xaw a dem tuuti fàttali ko la maam noonu def ak baayam def li ci dellu kon moo tax ah yëf yi fadula alhamdu am na ay gën a jëyanti am na gën a jëm ci kanam waaye nag nañ jàpp na yëf yi tabarakallah alhamdulilah mi ngi baax de mi ngi baax de mi ngi baax bu yàggutoo Sëriñ Fallu Mbàkke Jobaada xam nga ko sa mbokk am na mbokk mu tawat fu ne ñu yóbbu ko fa te lii may wax nii day sama mbokk moo tax ma sañ koo tudd fii fu ne ñu yóbbu ko fa Cheikh Sidal Muxtaar nga kër ngaan naa ah, sëñ bi ndaw koo xam ne xaw ma ay da koy xaw lu koy jot daal lu koy jot loo xam ne fu ñu ko yóbbu mais bañ ca jaaxlee ba ba yóbbu ko Cheikh Sidal Muxtaar maanaam sëñ bi dana ah ah noonu may wax rek nga xam ne xawut a dégg dañu wax sax dañ dañ ne ko nanga ne ma ah ah loolu rek la wax daane waaw nga xam tontu leen bañ demee keroog lañ mujj gis loola maanaam loola waxu maanaam nekku ca di ko woo di ko ta te maanaam daa mel ne ku yéemu def taajub ci loolu loolu ñu ko nettali rek waaye bañ ko fa indee ba teg ko fa ba nañ ko delluwaat yóbbuwaatuñ ko kër kenn te loolu waxuma la sang yi waaye taalib yi dong yi dong yi dong laa dong yu ndaw ndaw yi nekk ci mbedd mi wallahi dong am na magi murid yoo wax na fii teggi na bari waaye wallahi buñ na woon buñ na woon na saa taxaw suba yàlla bu yàlla bu leen ceen topp de kon nag loolu ñu bàyyi ko xel xam ne Euh, lu bëree bëri ba doon géej daal moom neexut a nose waaye xam naa ne buñ tanzimee li fi nekk day moom liñ doon wëri ci àll bi lépp ngi fi moom lépp ngi ci biir sëñ bi lépp ngi ci loxoy sëñ bi waaye gën a tanzim gi nag moom ak gën a yokk gi ak gën a gën a gën a gën a yaatal gi loolu moom ab liggéey la boo xam daa taxoog doomu aadama mbir alquran a ngi fi baax sunna a ngi fi baax waaye ay nit ñooy dund alquran ñooy dund sunna sëñ bi lim fi bàyyi muy yeesal gi mi ngi fi yoon wi mi ngi fi lu baax a ngi fi waaye nag ay nit ñooy fexe ba dund lim fi ba loolu na ku ne dañ ca am sa responsabilité bopp am na kilifa gu baax ci laay jeexal sëñ baa ngi wax rek waxtu jot na daa am kilifa gu ma dégg muy soññee ci genn màggal mu ne nangeen góor góoru ci seen lislaam alaaji maam Cerno ma ko wax moom daaru ma nan yéen taalibe yi ay kër boppam wax de kër boppam yéen taalibe yi maa ngi leen dénk ngeen góorgóoru ci lislaam ndax ku góorgóoru ci sa lislaam lislaam moom du yàq mukk te du fi ku ko xoolee nag seen islam yàqu daan na ngeen góorgóorlu ci seenub taalibe daan na sëñ Tuubaa lim fii ni du yàqu mukk waaye ko góorgóorlu yow sa taalibe dana yàqu dafa am mooy yëfi sëñ bi nga yàqule ci ak mënatoo ca dara moo fi nekk waaye du fi jóg te da faaw mu am ñu ko soutenir dana faaw faaw mu am ñu ca doon dara faaw mu am ñoo xam ne dañu am efficacité ba ku yàq sa bopp bu doodoo ca dara loolu sa responsabilité bopp aleykum wa rahmatullahi